ñun de xanaa dañoo jot ndigal dañoo jot ndigal ci ku baax kii di sëriñ bi bëggoon ñu yëkkëti rekk ay kàddu kadduy cant yoo xam ni dañoo xamut ndax nii mu ko bëggee ak ni mu soree ci moom ngir xasida yi des na ko man am déet waaye ñu jàpp rekk ni bu ko matewul ci suñu kàddu it ngeen jàpp ni yéene ji ëpp na loola mbégte mi tamit foo ko takk weesu na ko ba ay kàddu dina ci woyof lool waaye li ne ci xolam ne ci xolu taalibe yépp daanaka mën nañoo jàpp ni làmmiñ munu koo wax ndax xasida yii ngeen fi yëkkati te du tey rek booba ba léegi yéen a ngi koy wettali ndax ku ko gis nii mu tooge daanaka du yëg sax ab coono ci loolu daa mel ni li ko gënaloon mooy moom it mu takk ndigam di ko jàngandoo ak yéen moo ko moom la bëgg <laughs> waaw nee na noonu la ko sëñ bi daan defee kon ku nekk ci ñun ku ne koo xam ni yaa ngi bëgg xeeñcu dara ci sëriñ bi te di ko bëggee ku ne ñeena leen ñeetaan la goo xam ni nag amut bàkkaar tuyaaba la am ndax ñeeku baax ci lu baax lu muy def day yokk ay ay ay tuyaaba mu ni mi ngi leen di sant di jiital cant gi nag sëriñ bi ndax sëriñ bi rek a jar a sant ndax ko sant ko ne da ko ko yéene rek waaye kenn rek a jar a sant muy sëriñ bi sëriñ bi nga xam ni moo def lépp te ba mu koy defit wéet ci lool moom rek a ko def kenn dimbali ko dara ndax ba mu defee lii ak léegi yàgg na aw sadda rek kenn dimbaliwu ko ci ni ko sëñ bi lii fàtte nañ ko ci wala war nañ ko cee yokk wala war na cee nu mu tëddati kon kooku rek a jar sant def ci ñun nag li tubaab di wax feeling ak yëg goo xam ne gi yëg gu mat sëkk lii rek ko man kon muy sant sëriñ bi nga xam ni moo ko ci boole ak njabootug sëriñ bi yëpp rawatina kii fi ne di cheikh Mouhamadul Mountakha nga xam ni mooy seen wetal moom it lii rek lay dund. ci wan gi mu ñu won yoon ni lii rek moo fi ne muy xeeñtu sëriñ bi te it sëriñ bi kat mooy xaside yi sëriñ bi mooy xaside yi mooy œuvre littéraire bi nga xam ni moo ko moom ndax li mu ci wax moom rek a ko sañ a wax moom rek a ko mën a wax it du sañ ko sax waaye moom rek a ko mën a wax ndax jàng ngeen léegi wa man yulxini fil bahr man nag dama déggul arab waaye damay damay yëg biñ ma jëlee sànn ma ci biir géej gi defe ni ñoo ngi may sànq ndekete yoo xaalam bi l'univers est entre mes mains maniable et corvéable nu ma ko bëggee ku ñeme ku mën a wax loolu <laughs> te foofa la ko waxee <laughs> dégg nga li mu bañ may yóbbu di ma bëgg a sànq ndaxte géej mooy ci kéemaan yi gën a rëy ci kéemaan yi la ndaxte kee géej nekk na lu sa borom bind loo xam ni kenn mënu ko sonde nee na ñu jël ko bëgg ko tumurankeel yóbbu ko fa ci biir géej gi jàpp ni kat ñoo koy sànq wala ñoo koy nasaxal te booba xamuñu ni bu ko neex nu ko neex maññee ko ko loolu moom rek ko ko mën a wax ndax moo ko man kon nee na mi ngi sant sëriñ boobu bi ko boole it nag ci boole gi mu ko boole mu doon ab taalibeem gisul mu doon ab taalibeem di di ko dund tamit nag ni ñu koy dundee ba nga xam ni cant gi sama làmmiñ dina ci tuuti muy sant sëriñ bi di sant ki ko fi nekkal di sant njabootu sëriñ Touba gi waaye di sant ki nga xam ni mooy seenu njiit muy sëñ Yuusu di la sant yow mii jiite kuréel gi léegi rek lay wax ni nga demee woon ak ku baax kooku muy sëriñ saaliw suñu yaakaar yi démb tey tey ak ëllëg nga nekkoon ak moom démb ngeen nekkoon ak moom eh, eh, nampatalu ci moom mu yar leen ngeen di dund sëriñ bi ci moom ba ñëw nii di ko ko bégal ndaxte moom jàpp naa fi mu toll nii amul lu mu gën a lu lu ko gënal lii mu déglu léegi ak ñun ñii ñëpp kat ndax ñun sëñ bi rek lañuy dund sëñ bi rek sëñ bee ñu jaral lu ne kon yéen ñi nga xam ni yéen a ko bëggal ba mu tollu fii ba daanaka li mu bëgg a wax xam naa ni euh, euh, jëmmam ji euh, ak xolam bi daanaka fi fi ku baax di nekk lépp ci sëriñ bi nekk na fa kon mu ngi leen di sant mi ngi sant kuréel gi tey ñaan san borom mi nga xam ni mooy borom kattan mooy borom sañ-sañ bu rëy bi yàlla nañu defal ñun ñëpp suñu bëgg te bëgg kat bëgg gi bu dee fukk kat lépp na doon bëgg sëñ Touba bu dee téeméerit na nekk na doon nekk ci sëriñ Touba bañ koo génn faw ndaxte li ñu bëgg lépp mu ngi nekk ci nekk sëriñ ci nekk ci sëriñ bi ndaxte sëriñ bi kat sëñ bi ñun am nañu tawféex. yàlla beral nañu loxo ñun ñi nga xam ne ñoo tuddee ñooy doon taalibe sëriñ Touba loolu nag sama waxi bopp la yàlla daf ñoo beral loxo lim ñu beral loxo mooy léegi la ma koy fàttali ku jëloon àddina ak ni mu toll ak li ci ne cim koom li ci loxo tubaab yeeg nasaraan yeeg ñu ñuul ñeeg ñu xees ñeeg jal ko fii ni la lii kat dañ la koy jox te nga ba sëriñ bi nga ba fa lépp dem ci sëriñ bi kon sëñ bi lu toll ni moom amut kon nañ ci nekk tiiw rek mooy ci rek bañ a sonn bañ a tayeel bañ a ndaxte loolu lépp tayeel sonn ak lépp yëfi seytaane la te ki ñu àndal ñi fi ñëw ñëpp lu baax lañ doon wut moom la ñu bëggit ñun la ko yàlla jagleel muy sëriñ Touba te amul fenn kon sëñ bi man de dama xamul lu may wax leneen ndax li ma wax loo sax def jàppoon naa ni duma ko man ndaxte di la sant sama cant bopp ndax boo ma bàyyi woon sànq laay nuyoo dem ndax maa ngi jàpp ni gàpparu yeeg waaye yooyu yëpp ndekete te yëfi yëfi yëfi seytaane la rek lii ñu fi am muy taw feex mënuñu ko woon ñàkk te leneen lu dul lii mënuñu ko may barke Serigne Touba leneen lu dul lii mënuñu ko may te sëñ bi bëgg ñoo dimbali rek a tax mu def lii te lii doo ko gis feneen man gàttuma tànk dem naa ci dëkk yu baree baree bare bare yoo xam ni yëpp dañoo jàpp ni ay dëkki jullit lañu ndax téere bi am na téere bu ma doon bind bu ñu tudd mu tamarul islamiya moom la ñuy wax memento économique et juridique des états membres de l'OCI 84 laa ko bind 56 pays de l'OCI nga xam ne seeni mbir yëpp laa gëstu woon ba dugal ko ci biir dëkk yooyu yëpp nag dama fa dem te du demu touriste dama fa dem ba xam lafa ne pour mën ko bind sur le plan religieux waaye li ñu am amul fenn <laughs> fii rek la am ndokke ñun bon kon nañ ci ngoy waaye it ñu ngi lay sant liñ lay sante nag du ndomba yi ñu la takkal ci yoon wi nga tudd yaa yor kàddug yoon wi waaye yëg gi ngay yëg sëriñ bi di ko ànd ak ñun bëgg sëriñ bi doon taalibe sëriñ bi te nungoo kenn jëkk laa gën laa doon taalibe moom lañ la bëggee moom lañu la nawee yàlla na yàgg na wér gi gën a bari yàlla na la fi yàlla yàggal ba loo bëgg liggéeyal sëriñ bi nga def ko ci sa sago ak ni ko bëggee te ñu ànd koog yow ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñépp tey jéggalu it bu dëngeet man la bu jubeet jub laa ci bëggoon jërë ngeen jëf tey ñaanal Cheikh Mouhamadoul taxa yàlla na fi yàgg yàlla na wér yàlla de boroom kéemaan la lu ko neex def sëñ Muntaxa mi yàlla na ci yàlla def kéema kéemaanuk boppam ndax sagu na lool sagal nañu ndaxte kat ñoo bokk dëkk réew mi waaye xam ngeen ni ñëpp moom la déglu ñëpp moom la ñu yaakaar ñëpp nag te génnewu ma ci kenn ku yàlla cërale cër bu mel noonu beral la loxo ber gu mel noonu war nga foo toll di ko sant waaye cant gépp nag ñu dajale ko jëmale ko ci kenn rek mooy suñu yaakaar di Serigne Touba Cheikhul Khadim Khadim Rasoul jërë ngeen jëf waaw